bàyyi leen jëmm ji mu dund dundam nag franchement toll ngeen ko fu ko yàlla tollul franchement contrôlé ngeen dundam fu ko yàlla contrôlé wul yéen oustaz Modou Fall dem na Bercy tourné ji émission mu leer leen ne émission la tourné ji ngeen jël émission bi transformé ko en Bercy sosal ko lu ne weng mu boole patt ak organisé wu di ko muñaale oustaz Modou Fall am férié xaw xawma feet dem Mbuur photo photo am ci teeyu bakkanam posté ko ci réseau yi pour ay soppeem jot ci ngeen jëlati photo ba ne du ca dal parce que waaraatekat la ci na yàlla nee na yenent bi nee na kon amul droit yi dund yenn dund yi <laughs> mais yéen vous êtes qui yéen vous kii ba war a mën a taxaw nag di juger oustaz Modou Fall bu de ëllëg yowmal xiyaam bés penc bu ko yàlla yee du ko xaaral mbooloo mi la doon déglu ma doog laa àtte da koy àtte ci jëfam oustaz Modou Fall li ma bëgg mooy ngeen déglu parole yi muy wax naan yàlla nee na yenent bi nee na ngeen jëriñoo ko te bañ di ko juger ci ay jëfam yéen ku leen topp ngeen rey ko jaale ko dëjal ko toog ca dëj ba naan ku baax